waaw ñu ngi ci xaas TV ak jaw Diaw Kécoba am surprise fekk ko Grand Théâtre Diaw ñu ngi lay siyaar. maa ngi leen di siyaar di leen fay waa xaas TV. waa jaw waa xaas TV tey bu ñu la fekkee xëy na euh, surprise la wala mbégte pour mën la am question yu ñu la laaj Diaw ci liggéeyam métti na wala méttiwul. liggéey bu yomb de daanaka baaxul lañ daan wax bu yombee rek baaxul surtout nga nekk xale donc man je suis prêt mentalement ci bépp euh, kii boo obstacle boo xamante ni mën naa koo jànkoonteel je suis mentalement donc milieu parce que milieu bi ñu nekk moo mel noonu du ma def loolu dul si ci sama objectif yi ku wax ma déglu loolu li baax ma jël li bon ma sànni waaw. ah Diaw ndax mosoo imité kenn wala tooñ kenn famem dal ci sa kaw. non je pense pas nag parce que d'habitude ñëpp ñi may tooñ dañoo nekk ci milieu showbiz beeg wala milieu politique bi te daanaka dañuy entraîner seen famille ci loolu politique boo ci nekkee ba showbiz sa famille bu dee dañuy jug di tontu rek chaque jour dañuy jug di tontu parce que loolu ak milieu bi ñoo ànd waaw. ñu ne jaww li muy inspiré woo di ko wax ci maam Cheikh Tidiane Diop la ko sàccee woon doon dafa fekkeewul ci moom lu bari wala ay yëngu-yëngoom ay jege ñaalem dañ koy jox conseil est-ce que loolu am na. daanaka man dama judd ci aar damaa judd fekk aar tege sama kër donc nekkul loo xamante ni dafa dama ko wàlliyaan si wala dara dafa nekk si sama deret parce que sama maam moo ma yar man sama maam Cheikh Tidiane Diop moom laa doon woowee papa sama maam bu jigéen moom laay woowee yaay sama yaay si turam laa yaaw sama papa si turam ñoom ñoo ma yar sama yaay ak sama papa daanaka danoo teel a taxaw tàggalikoo donc aar man sama deret la nekk li may def dama koy def naturellement du ma ci forcer dara man dama neex en fait voilà. jaww dafa neex sénégalais yi mel nañu consommé nañ ko mais est que liggéey bi méttiwul. métti na liggéey bu yomb amut moom laa la wax sànq je te metti na trop mais ñun ay jeunes lañ man je me dis dans la tête que ni feek màggetuma wala deewuma du ma noppalu parce que xale du noppalu xale du sonn souvent sama booy dama leen di wax tout le temps booy man américain laa su ma dee rek laay noppalu parce que chaque jour dañ naan jaw du nelaw day toog di bind wala muy toog di seetaan ay film ba ay 2 di du matin bu wàccee liggéey bu xëyee war a yeewaat liggéey du ne affaire man leen man du ma nelaw noonu laa mel. ñu ne woon la woon football ba échec mu ne mën naa ne destin nit da ngay nangu destin football laa yaakaaroon ni ci lay tekk yàlla dogalu ko mi ngi ma jàppaloo ci lii espérons. <laughs> ñu ngi lay jaajëf merci beaucoup.